Euh, salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ki seen teewaay Sénégal yëpp dañ doon xaar démb président de la république wax ban bés lañu ñu war a def élection yi ba nga xam ne dinañu mën a tànn ki koy wuutu ba bu mandaam jeexee le 2 avril kooku mën a jël service waaye li ñu dégg mooy dafa bañ a wax bés bi nga xam ne bii la ci la ñu war a def élection non seulement daf ko bañ parce que depuis le 15 la ñu ko waxoon mu def ko defu ko mais dafa ne balaa mu ko def il faut mu def dialogue boo xam ne conseil constitutionnel sant ko kenn sant ko mu ne il faut mu waxtaan ak ñëpp ñëpp bi mooy ñi ci bokk ak ñi ci bokk. parce que li mu concerné mooy candidat yi nga xam ne conseil concerné validé na la yemul ci loolu mu ne dinañu waxtaanee ndax dañuy yokk liste beeg dañ koy wàññi wala dañ koy reprendre dañuy reprendre élection loolu nag amul leneen luñ koy tuddee lu dul fasul yéene organiser élection mu jël nag baaraamam teg ko ci ne bu amul ku ko wuutu moom moo fi toog bu fekkee amul ku ko wuutu moom moo fi toog te moom moo war a fixer date bi nga xam ne ci la ñuy tabbee ki ko wutu moom mooy toog naa ba pare parce que boo tabul kilo la wutu kenn du la wutu loolu moo dal Sénégal tey ñun ñépp nag dañu demul ci waxtaan bu ñuy waxtaanee loolu benn waxtaan la ñu mun a am mooy fixe na date ñu xool date boobu yan incidence la am ci procédure bi ñu waxtaanee. loolu ce pas à l'ordre du jour aujourd'hui donc Sénégal toll na ci gutt goo xam ne gi ah dafa mel ni xob bu ngelaw dugal ci gutt ngelaw boobu génnewu ko ci li ko ciy génne nag mooy taxaw taxawaay bi war dinañ ko def à la communauté internationale nous voulons dire que nous savons que vous nous regardez avec beaucoup de compassion et vous ne reconnaissez plus le Sénégal aujourd'hui le Sénégal et entrain avec le président Macky Sall de tuer ses propres institutions. Le Conseil constitutionnel a remis en cause le report unilatéral en cassant le décret. Il a remis en cause le projet de loi qui voulait reporter les élections qui étaient assimilées à une prolongation de mandat. On a demandé au président de fixer la date dans les meilleurs délais. Les meilleurs délais ne sont plus à jour parce que depuis le 15, on ne parle plus de meilleurs délais. on ne parle plus de plus bref délai on est dans l'extrême urgence aujourd'hui maintenant le président a dit à tout le peuple qu'il refuse et il cherche de la complicité pour acter ce refus dire que les acteurs ne sont pas d'accord et comme les acteurs ne sont pas d'accord je remets le dossier au Conseil constitutionnel et ce Conseil constitutionnel ne doit pas être décrédibilisé et lorsqu'on décrédibilise le Conseil constitutionnel on trouve des prétextes pour casser le processus électoral Donc voilà un peu la situation dans laquelle le Sénégal se trouve. Et nous, en tant que candidats, nous nous opposons à tout dialogue sur cette question et nous exigeons qu'une date soit prise avant le 2 avril pour déclencher le processus électoral. Je vous remercie de votre